asalaamaaleykum mbokk yi mbokk internet yi yeneen fi waat ci seen euh, chaîne Kimtan TV alors tey nag on a vraiment un thème boo xam ne thème d'actualité rek koy woowee parce que vraiment lëmbi na dëkk bi on va parler des violences au sein des foyers loolu nag vraiment ñëpp concerné nañ et ça gis nañ ne dafa am étape boo xam ne sénégalais dañ ko franchir maanaam étape boo xam ne entre xalaat ne sa mère tax nga naan kii de waroon bëgg naa koo rey wala dara ba sax ngay dem ci boppam di ko def tey nag ak Merkema ñu nañ ci waxtaan moom nag mu indi ñu peut ay conseils mu wax ñu aussi léeg-léeg lan moo mën a lan moo war a tax aussi jigéen di soodi bu jëm wala boog jigéen di soodi jëkkëram wala sax doom aussi dem di sànni ay ay huile euh, ay huile bu am safara ay bàyyam ba di ko rey loolu yëpp daal nañ ci waxtaan Merkema aussi wax ñu aussi lan la ci xam. Merkema nag ñu ngi lay ñu ngi lay bàyyi nga gën nga dugg ci tey ci waxtaan bi nuyoo internet yi.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 ah liñ ma laaj seyde Mariam doy na waar ndax euh, violence yi xew léegi muy ci góor buy toroxal jabaram muy ci jigéen buy soode ay wujjam di soode sax ay doomu jëkkëram muy góor xale bu góor buy rey baayam maanaam violence yi daal egg na extrémité boo xam ne kenn xamul nu mu toll lii nag duñ ko tujjal li du def ko rek mbiru seytaane rek yal na ci yàlla musal seytaane moom moo am doole boo xam ne bu xësee ba dugg ci nit nit ki dootul contrôlé mu ko waaye ñu ngi ciy jëli ci violence bi nga xam ne moo gën a répandu mooy violence su jigéen lu jigéen di subir ci biir këram ay waay jigéen ñi ñun ñoo sonn waaye ay waay Sénégal jigéenu Sénégal ñoo sonn te amuñu wallu fenn boo nekkee gone ñu ngi lay yar di la séparer di la gënale ak sa frère boo nekkee ma yaa ngi gitu, ci sa tutelu frère sa tutelu papa su papa ja demé yaa ngi tutelu frère bu joggé ci frère bi yaa ngi ci tutelu jëkkër te yoyu yëp ngay jaar bo ci amul ay ño xamné ne borom yërmane la daf lay def ay mettit di la def ay misère pour ndap même pas en finir bu dom bu jëkkër ja déwé dom ju ja tamit nek sa kilifa encore waaye ma leen di wax leen doomu aadama wala góoru Sénégal lay wax sax man précisément ñoom ñoo toroxal jigéen ñoom ñoo xam lan mooy gëddu jigéen waaye yàlla mi wàccee sóoratu jigéen yàlla mi wàccee ay saar sóoratu nuur jigéen na ko moom moom laa wax ci sama émission ba li passé sóoratu talaax muy fase jigéen ko moom suuratul mujaadala mooy discussion jigéen a ko moom ak yeneen ak yeneen yàlla danay wax nisaa les femmes inna xalaqnaakum min zakarin wa sa yàlla dafa njëkk a wax ci soo nisaa dama leen bind ci jigéen ak góor yàlla nee na ma jox jigéen ay matuwaayam Sayda Xadija sama turandoo vingt cinq ans joxe na ko dépense nekk góor goo xam ne góor ga daf koo yërëm suturaal ko respecté ko ba li mu dund ak Seyda Khadija yëpp musul am jëkk musul am musul am jabar ba mu gaañu la am jabar te nee na bu nekkoon ak moom ndax yaay la xarit la lépp la nee na ma taxaw ko ma ñëpp moo ma gëm ba ma ñëpp weddee mu taxaw ma ba ma ñëpp ba ñëpp ba ñëpp ba ñëpp lii ma beddi ma mu dimbali ma ci alalam ba ma ñëpp xañi donc yàlla jox jigéen ak xam bu mag ci alxuraan may wax ci violence faite aux femmes ci sóoratul mujaadala mooy sóoratu discussion dafa am benn jigéen bu ñu doon wax xawla bint Saalaba dafa mës ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sayda nettali histoire boobu avant aaya bi di wàcc mu ne soxna si ñëw ne faala ba ñëw nekk yonent bi sallallahu alayhi sama jëkkër ji nekkoon naa man ma am sama alal bu dul jeex muy noos ci alal jeex man di ko noos di def lu ko ne ba alal ji jeex mu dem dem bàyyi ma ak sama njaboot dem takki beneen xale bu ndaw féete fa ba ko yàlla mayee nee na su ma jëlee xale yóbbu ko ci ñoom dootuleen leen talati mbax ngay seetoog seetam bu bees dañuy riir daal di sànk su ma leen jëlee ci man indi leen ñu xiif torox tumuraanke ndax amatuma dara yonent bi ya sayda Aïcha nee na chaque jour rek sayda xaw la ñëw di wax chaque jour xaw la bint xaw la bint sax la ba ñëw di wax yonent bi ne ko mu ne gu ma la tontu de ndax lii ngay wax xawma ci dara ndax yàlla waxuma ci dara nee na di ko wax di ko wax ba ñun ñëpp ndeysaan waa kër ga yëpp ñu jooy ndax xol bi metti bi mu duggee woon ak ni mu ko doon waxee ak li mu foyse ci boppam rek lu ko ci xolam lu ko jëkkër ji def ba benn jour rek. aaya ba daal di wàcc mu mujaadala yàlla ne bismillahi rahmaani laqad samia allahu xawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allahi wallahu yasmau taxawarukuma inna allah samin alim yàlla daal di wàcc saar boobu ne ko gis nga gis naa jigéen joo xam ne mi ngi ñëw di discuter ak yow di la laaj di plaindre munoo ko tontu mais man yàlla maa koy tontu ndax yàlla nee na dégg naa seen discussion boobu te fekk ci avant l'islam arab yi bu ñu bëggee fase jigéen dañ naan ko def naa la ni sama yaay ji ma jur xam nga ku du sëy ak sa yaay ji mu jur jeex na te bu ko xasee ba wax sëy ba dagg na amul dara lu ko mën a dellu si waat bi sallallahu alayhi wa yàlla wàccal nag inna alladina alladina yudahiruna minkum min nisaikum maa hum maa hunna ummahatuhunna in ummahatuhunna illa laa i waladnahum wa innahum لا يقولون من القول وزورا يلا نينا دا نين دي واخ ني ني خا ني نوي سيني جابا دي سيني سيني ياي دي موسا نيك سيني ياي يلا نينا لولو ني واخ واخ جو تيغول فين لو خا ني واخو زور لا واخو بون لا وا ناخ سيني ياي موي نيغا خا ني دا نين لين دا نين جو سي سين بير دونك بوبا لا لولا داك دوتو كين دوتو كو واخاتي مو نيك فاسي واو كنت ميل léegi mu leer nañ waaye ñun Sénégal nañ la wax yow jigéen ban devoir nga am rek waaye góor gi ban devoir la am ci jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa akramahunna illa karim wa maa ahanahunna illa ku leen teral mooy ku tedd waaye ku leen toroxal yow yaay torox lii sunu xale bu ndaw bi way way way bu doy waar muy ami kolle nee na ku fi toroxal jigéen rek nee na ñu ñu ko defam daw ñepp a niir man day ci lima dund ci sama dund ki bari na wul muy experience su gis goor gu ma mus gis muy kuma jégué muy kuma sori muy sama mbokk muy ñuma xam kuma ci gis nga toroxal sa jabar surtout à l'occurrence aawa ba nga toroxal ko dem uti benen jabar ca jabar ca ca ca aaw ba ngay mujj ak ay ñu lay yor ba ngay te bala ngay dee torox kenn mu ci dara yalla nañu jël usikum bi nisaai xayran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba mbalam di yàtt génn àddina mu ne maa ngi leen di conseiller maa ngi leen di ñax maa ngi leen di wax ne góor leen ci jigéen ñi ci def ci ñoom lu baax góor gu baax du toroxal jigéen te ñaaw na nit nekk njabootam ñuy màgg ngay saaga yaayam saaga seen yaay di dóor seen yaay seeni kanam ba ñu màgg bu ñu màggee dañuy fépp du ma av du ma avaliser mu xale bii li mu def ndax rey bakken extrême la mais xale bi lan la dund lan la dund ci ci ci ci dundam lan la dund bu mu nekkee xale bàyyam di dóor ndeyam bàyyam di saaga ndeyam bàyyam di toroxal ndeyam ba mu jaral ko mu egg extrême bi di wax ndeyam lu bon naan ko sax dinaa ut jabar boo xam ne bu ñëwee di nga xam ne dootoo tekkee dara ci kër gi nii ngay def ak góor ñi nga def te li gën a ñaaw Sénégal heure bu ñu bëggee. fase jigéen wala heure bu ñu bëggee toroxal ko dañ koy jiiñ njaaloo xam nga lan lañ ci pour beneen góor du ko ñemee dañ naan ko jëkkër ja jiiñ lu bon kat ba fala pour ñu bañ nga am beneen jëkkër wala nga am beneen situation bu gëm bi nga leen yoroon ndax it soxor la quand soxor la soxor la bu baax bu ñu yoree jigéen ñu ko ñu waral bëgguñu mu dem keneen yor ko nu nu nu noo xam ne dañuy am gàcc àddina loolu méchanceté la te ñun dañ koy dund Sénégal fii nañu ëlbatiku ñu xool lan la yàlla wax ci jigéen ñun amatul lu ñuy wax parce que suñu àddina yépp dañuy yàq nii ngeen di sëy nii ngeen di muñ ñu dee ñun suñu tante yi ñun ñoo leen tege ñun ndax ñun am na fu ngir di egsi am nañu suñu liggéey ay fonctionnaire lañ am nañ suñu salaire am na fu muy dund egsi ñu ne stop bu bëggee ëpp ba nga xam ne ëpp la waaye suñu yaay yi amuñu woon boobu possibilité amuñu woon dara lu ñu yor amuñu xaalis amuñu dara ku ci mës a jóge sa kër jëkkër sa kër bàyyi dem sa kër jëkkër dee moo la fay jóge doo xalaat a fay doo xalaat dellu si ginnaaw ñooñu duñ la accepté duñ dax dox mënatoo yor sa bopp te mënoo jël say doom indi leen fa donc dañ lay def ba nga dee. am na tante boo xam dañ koo indi ca kër ga doom yi moom rafet mu ndax fi hôpital la ñetti weer la fa am dee ndax ndax ndax ndax sonn ay way jigi góor gi yërëm leen jigéen ñi te bàyyi violence yi. te jigen ñi aussi way way jigen tamit mo mën soxor ci morom jigenam way jigen dañu mën soxor de xolal nga tim sa morom jigen muy sa wujj wala koy xolal kese nga dem tangal ndox soti ko ak yaram yaram ni mu sensible nga tangal ndox soti ko tangal diwlin soti ko yàq adinam allah adina ak allah manam defi gërëm ko yow do tekki dar wala nga jamat ko ay paka nañu dellu si xel yi te dellu si yàlla te jàng alxuraan nekk ay jullit ay waay jullit du nekk jullit dëggantaan di lor moroomam jullit du nekk jullit dëggantaan di wax lu bon ci ginnaaw moroomam jullit du nekk jullit dëggantaan di sëriñ di yàq boroom moroomam ay waay nañu góorgóorlu topp yàlla jàng alxuraan alxuraan ku koy jàng sa xol lu mu ñuul ñuul dinay dem ba dina dina set wicc kuy julli di jàpp yàlla dina la dimbali ba nga la sax yaay ak peut-être que ñoo aussi muñ ba ba ba mais ñun du at du ñett du sax cinq ans ans mois wala une semaine wala deux mois di comme par exemple ñu seen yaay est-ce que tu as dit nañ ne xale elles ont raison ou elles ont tort. ah xam génération bu nekk ak la mu génération est xale Je suis nanguute li de de man day yor ay jigéen ni raisonné ci dara raisonné ma ne ñun de lii ngeen di wala lii ngeen dundoon seeni génération ñun duñ ko def parce que ñun ñu bàyyi góor mu ñuy dóor duñu bàyyi góor mu ñuy xas góor bala ñuy génn këram fekk ñun am nañ suñu kër ba bala daan benn baat ñun ñu génn kër bu jekk dem duggi suñu kër duñ toog naan damay xool njaboot ki waaye nag wax dëgg yàlla nag nañ waxante dëgg nag njariñ loo fekkee góor ñi am leen yërmande ci jigéen ñi am leen góor gu mat góor dëgg du topp jigéen ci dara waye ñun góoru tay dañuy gis ñu tong góor mun na tong ñaari wër ñetti wër at ah, di def lu ko neex té impunité bi moma metti impunité bi manam goor di def lu ko neex xalaat ne dara du ko ci fekk tor bi jigen lañ koy teg yalla waxul lol de yalla waxul lol de yalla nee lin nisaai li rijaali alayhim daraja deug la yalla nee ma tek goor mu nekk ci kaw jigen waye xamal mo la ko yërmande ak yor dundal sàngal léegi soo amee sa salaire boo ñaanee sa jëkkër mu ne la am nga sa salaire fajalal sa bopp wala su ma defee benn nga def benn waaw góor goo xam ne loolu ngay def fan nga jëm ban respect lañ ngay am ban kàddu nga am ci kër gi nee nga mu def ne kon nag doo ko waxee mu tontu waaye sunu maam yu njëkk ya xamoon lan mooy jëkk lan mooy jabar dañ daan ak jabar yu bari nekk ci kër gi njaboot nekk fi dara du yëngu ndax dañoo jàngoon alxuraan xam li xew ma ne la dara du yëngu tey benn jabar ngay am di di ko di teg sa bët sax ci alal ja mu am te yàlla nee na li rijaali nasibun mimma ktasabu wali nisaa'i nasibun mimma ktasabu yàlla nee na ku nekk sa alal jang am lew na la doom nga def ci lu la neex waaye doy na sayida Aïcha mi nga sayida Xadija mi nga xam ne commerçante la woon yor yonent bi dépassé am fan ñaar fukk ak juróom ah xanaa loolu rek doy na exemple mais góor ñi dañuy iñaane jigéen ñi sax lu ñu am teg ci bëtu salaire ci bëtu jabar teg ci alalu jabar sax xol di ca def lu nekk di ko liggéey di def lu nekk mais da ngay ñàkk fayda góor dëgg yéen bi sallallahu alayhi wasallam nee na lu mu am da koy jox njabootam jox ko jabaram te lu jabaram am mu bàyyi ko moom maanaam lu mu am jox jabaram lu jabaram am mu bàyyi kook moom xorom jigéen wuru ko wuru ko wuru ko wuru ko jënd ci kër bu dee góor ga am na fulla ak fayda waaye góor yi nag fu mu ne am na ñàkk fayda ci góor ñi laa koy wax de wallahi billahi tallaahi du dëgg am na góor yu mën seen kër am na góor yoo xam ne dërëmu xorom dërëmu xorom duñu permettre seen jabar jënd ko waaye nag xale yi li ñu gis man mënuma lu dul ah di leen wax ne comme seen chance lii la jéem leen ci xool suñu borom jéem leen sayte yàlla tax inna li sabr nag xudud maanaam yàlla nee na muñ dafa am fu mu egg boo xamee ne yenn muñ yi catastrophe la lay indil nee nañ c'est préférable sëy boobu nga bañ caa toogati ban sëy lay jariñ boo xam ne da nga nar a ba dee ca loolu jeex na dootul suñu génération ñun ñoo tane suñuy yaay suñu yaay ñoo tane suñuy maam ay sëy ba dee loolu dafa amatul jamono bi moo gàtt xale yi amatul temps sooy dox dañ ne on a plus le temps temps bi ngeen amoon mère di souffrir ba seen njaboot di tekki sax ko fekk ñun amuñu loolu ñun mënal suñu bopp lañ def te wax nañ dëgg ndax ñun suñu yaay buñ mënaloon seen ña ca mënaloon seen bopp góor ñi dañ daan topp seen ginnaaw ñun suñu génération ñi ci liggéey yenn yi duñ leen def yenn yi xam na foo am na fu mu yem ndax soo génnee ci kër gi mën nga yor sa bopp te am na sax na muy demee moom mooy génn kër yoon dafi nekk xam nañ seeni i droit xam nañ lépp waaye góor yi delloo seen seen xel xale yi góor yi nga xam ne yéen a ngi wut jabar bàyyi leen di liggéey xale yu jigéen yi dañu wax xale jigéen yi liggéey mais xale yi góor yéen yi gën a ñeme sëriñ di liggéey xale jigéen xale bu la te liggéey ko xale bu la lii nga téye boo ko takkee di ko di ko njabar te ndeyam sonn ci moom baayam sonn ci moom nga njabar ko mu ak accaparé ko di jël lépp li mu am naan ko lii ngay def lii ngay def lii góor na am fulla ak fayda góor gu mën sa kër am kàddu waaye góor gu mënul sa kër doo fa am kàddu boo ko nee tegal dërëm ma teg dërëm boo ko nee benn mun a ñaar amatu respect nee naa la maam yi kër ga da daan am ñeenti jabar njaboot ga fees dell te dara du yëngu amoon nañ fulla am fayda dërëm du jigéen du ko dugal ci kër waaw bala may dee nañu naan parité parité dafa am lu mu neex rek mais parité du dara yàlla wan na ni góor li tax ma def ko góor ñaar jigéen benn pour góor moom mooy jox jigéen moo koy yor moo koy dëkkal moo koy sàng lu ma am na ko jox lu jigen ka am mu ko ngam ci bi loolu la doon def mm-hmm. ci bi neena musul toroxal jigen musul toroxal jabar ma du yeen yent bi ngeen di roy may roy len jabar yeen ci sallallahu alaihi wasallam bay len jigen ni ngeen yërëm len ah loolu mm-hmm. ah, di ci xam sama domi nak lo rek la lay mën conseiller de sey len ndax yalla tax ah munuma si munuma ci wax plus que ça sey len ndax yalla tax am len diine topp yàlla jéem a am seeni jëkkër def leen ni xarit def leen ni àndandoo góor ñi nag ñu xam ne jigéen warul def benn nga def benn déedéet wan ko maa la mën ci lépp waaw te man la wax ak dañoo sax gis nga jigéen heure boo ko teralee di ko wan ne man maa la gën a yéene li ma leen wallahi bu lay bu lay la koy delloo yow di di nga ne déedéet dina la delloo bu wis la ko te doo ko demandé ndax wan ko ne man maay kilifa ci kër gi te et ku jël sa alal

Nous allons commencé des épisodes sur les femmes de l'islam, en commençant par notre chère mère Hawa, Adam et Hawa. Donc, on va peut-être parler aussi de Iblis et Ben. ben peut-être peut-être peut vidéo ça va juste parler de l'influence que Satan a eu ci suñu yaay Hawa te bi mu continuer aussi di am ci ñun jigéen ñi te yàlla xam na ñun ñëpp koy wax ñun matuñu mm-hmm. mais vraiment on est très très influençable ça c'est vrai mm-hmm. te yaakaar naa ne duñu commencé épisode les femmes de euh, du Coran hein, ni nañ mën a wax ci femme yëpp mais aussi duñu duñu fàtte aussi waxaale un peu sur l'histoire avant tout hum, de Iblis ñu waxee ci Hawa rek wax aussi influence bi Iblis am ci moom après ni nañu wax aussi ci Iblis ni mu ni mu ni mu ni mu jotee nekk Iblis ak viam yëpp quoi donc euh, merci beaucoup nañ ñu ngén wax aussi ngén abonné wu ngén euh, aimé aussi ngén bàyyi ay commentaires donc on vous dit juste à la semaine prochaine Inch'Allah donc euh, au revoir et bonne soirée à tous.